ne alhamdulillahi kasiran ala kulli hal yooyu yëpp defe naa ay doomu jullit lañu ay baat ñu xam la mais Khalifa Sall dafa nekk bësam te Khalifa Sall mu ngi ci yoon bi léegi mu ñëw ñun ñoo dem ci kàttanu yàlla dem nañu ba rëbës pour jëli ko ba mu génne bagages yi ñu dugal ko ci oto suñu confrère Demba Ciré li ñu topanté man ma and ak madame sar mom mu top suñu gannaaw malheureusement yoon bi ñu waron jël ñun jël nañ yoon ba ñew mom yoonu Blaise bi la jël malheureusement té comme nit ñi namon nañ ko bëgg nañ ko ñu taxaw jalonné yoon bi motax baté ba mais dafa ni bi ko né dañuy dem sa makan kër ga dafa né dédét il faut que ma nuyu sama Wajur bu